radiallahu anhu qaala mu ne samictu rasulallahi dégg naa yonentu sallallahu alayhi wasallama yaqulu mu ne aktharu xataaya bni aadama li ëpp ci bàkkaar li ëpp ci ñaawteef li ëpp ci péché yi doomu aadama di def fii lisaanihi ñu ngi ci làmmiñam rawahu tabaraani xadis ji tabaraani moo ko solo dañu gis eh, sayduna abdullahi ibnu masud ndeysaan ci kaw safa ma ngay adressé làmmiñam naan ko yaa lisaanu ay yow sama làmmiñ qul xayran tagnam waxal lu baax ndax nga màng yiw uskut noppil taslam ndax nga mucc min qabli an tëndam balaa nga yegg fooy réccu waxal yiw ndax nga màng ndax nga gañe noppil ndax nga sauvé soo ko deful da nga réccu ñu ne ko yow baay Abdurahman dàkkantalam la lii yaa ko wax wala loo dégg la mu ne déedéet dama dégg yonentu sallallahu alayhi wa wax mu daal di tudd xadis ci li ëpp ci ñaawteefu doomi aadama mi ngi ci làmmiñam doomu ñaari source yi ñoo gën a garaaw ci source ñaawteef yi ne ci moom muy làmmiñam ak pëyam làmmiñ mbokk yi xool leen ci àdduna rek ñaata nit la làmmiñ yóbbu kaso benn baat rek demal fii rek ci télé bi wax baat boo xam ne day tax ñu ne borom terroriste la même su dee jublu woo ko ba moytul doo yendu sa kër guerre yi ngeen di dégg ci àdduna yëpp benn buur ay wax lu beneen buur bëgguta dégg benn président yi wax benn kàddu rek ab guerre jógee ca ay junne walla ay million dee ca naka noonu it doomu aadama bi ci boppam yi nga xam ne moo ko ñoo koy détruire fii ci àdduna ak mën ko yóbbu safara la ci ëpp ci làmmeñu lay jógee ni ko yonentu sallallahu na ko macaad ne ko wa hal yakubbu nnaasa ala manaxirihim fi nnaari illa xasaidu alsinatihim ndax am na lu mën a yóbbu nit ñi safara lu dul seen ngóobitu làmmiñ yi yonentu daan na digle lool ñuy yàggal suñu noppi ak rafetal suñu suñu jikko sallallahu alayhi wa wax na bés Abu Dhar ko maa ngi lay dénk ñaari jikko yoo xam ne ñoo gën a woyof ci ginnaaw duñ la diisal waaye ñoo gën a diis ca balance ba ñuy peesee jëf mooy rafet jikko ak noppi lu yàgg mu ne ko maa ngi lay waatal ci ki nga xam ne sama dund a ngi ci loxoom mbindeefim mosu ñoo jëf jëf ju baaxe ni ñaari yi guddal noppi ak rafetal jikko ndax wax yonentu dana wax ne nit dana wax benn baat ñëpp ree du ci bàyyi xel sax waaye mu jural ko sànjum yàlla mu ko yóbbu safara nangami at nangami décennie yal yàlla may yàlla yaa yonentu wax na ne gëm yàlla gëm bis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 mbokk yi dégg sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la mun Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee lañu ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island